الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع اليمين ci Zahir 1946 laa gis ak Serigne Saliou waaye fii ma toll xam naa ni moo ma lii mu def ci man ba mu feeñ moo ko defoon ci man ba mu dee rekk ay potentialité waaye jébbalu gi ma jébbalu ci moom ci 1946 le 17 avril 1946 jébbalu googee ak wéyee ndigalam moo tax mu actualiser li mu defoon ci man ndax bu ma dajewuloon ak moom man na am mu occulter li mu def ci man kon du feeñ ndax maa ngi lay nit ba ko la def ci nit ku ne potentiellement xalifa bi yàlla nga ci kaw suuf waaye boo ñëwee lay mën tax la def ci yow am sëriñ bu sëriñ mu di la sunu borom réaliser ba keroog nga yem fa nga yem moo xam di nga dem nag ba nekk xalifa bi yàlla waaye kuutaayul yàlla ci ko suuf nit ku ne kuutaayul yàlla nga waaye ka muy def xalifaam mooy ka nga xam ni la mu def ci moom lépp réalisé na kenn rekk lay doon ci jamono ju ne sëriñ bi moom xam naa ni moo ma wut si Mam cheikh ibrahima ibrahima fall mom mo doon wër serigne touba ba gis ko man japp na ni serigne saliwo ma doon wër ba fekk ma ci sama tol maam juróom ñett at mu jël ma def ma ab taalube ma jéblu ci mom mu yor ma ba ma def ma nim ma def nim ma def nak waaye mënuma koo xam ndax keroog ba mu ma nee def naa ci yow loolu ñuy wax ab ceex dama ko ne moo mbàkke lu dig ceex mun ma du loo mën a xam waaye na nga jàppe sa bopp ak man ni ñaari ndabi ndox nga jël wàttu ndaa di tàng ci lii di sutti ci lii mënoo caa xam lu dul lu tuutee ni doq yi wadd ci diggante ñaari ndab yi ndax li ma def ci yow de ku dul yàlla sax boroom xamu ko kon man mënuma cee xam lu dul lu tuuti lu toll ni doq yi wadd ci diggante ñaari ndab yi kon sama digg ak sëriñ Saliou mu ngi ma seexal 1987 17 avril 1987 17 avril 1946 laa jébbali ci moom mu seexal ma 17 avril 1987 te li ci am mooy. li fi gaa ñi doon wax rek sëriñ bee ma bëgg ndax am na sama benn bu ñuy wax ma Matar Diop Baye Fall moom taalibe la mu tudde boppam Baye Fallub Cheikh Béthio mu ngay liggéey aéroport Dakar moom nouvelle frontière la ne moom moo gént Sëriñ Saaliwu ne ko li dox sama digënté ak Cheikh Béthio di ciofel da dem ba mbirum yalla tabbi ci yeen ñi ñëpp ciofel gogu mbirum suñu borom bobu nek sama digg ak mo leen di jariñ yeen kon nim ma waxon rek mëno xam ak Cheikh jéewuma ko xam sax nag sëriñ bee ma wax ba mo tax léeg-léeg ma dégg ñu naa seex diw moo diw ay wax yu moo ku xamul lu dig jeex mën ngaa seexal sëriñ tubaa rek mën a seexal waaye dama ni doomi sëriñ tubaa yu baax yu mag yi bu amoon kuy seexal ñoom ñu mën a seexal waaye ci sëriñ Modou Moussa Mbacke ba ci sëriñ Abdou Khadir gisoo ci kenn ku seexal sëriñ Saliou rek a seexal kon man da ngay dégg ñu naa da dégg sax ci rajo bi doomi sëti sëriñ tuwaay bu ñuy woote dem xel koom dañ naa seex diw ci barab sàngam ñu ne ko seexal ñu ni sëriñ diw moo ku xamulug mais man bu ma doon woon seex nga ni tan waaye man damaa seex kon lu ñu jiiñ ab seex bu ko mënul man xam naa ko ab seex mënta seexal sëriñ tubaay seexal du keneen moo ne fa ma jëlee ak seex tànk benn góor yàlla dogguma ko fa xaw ma lu di jeex leg leg rek ma am yu ma gis leg leg ma am yu ma gis te li ma gis mbolo mi ma top ci la legi fuma tok fu ne lopp nit jeblu lolu ci keman yi la di te eh, ñan ñoy jeblu man samay talube dof uci ci de man ci jang di diplôme yu nek ngi ci bu militaire gradé mu nek ngi ci ñëpp catégorie socio professionnel bo dem amna cey cay té samay taalube kët néna serigne saliw barki demb ndax da daan jox serigne si tabaxu tabaxu dara dara tërbiya ñuy tok at duñu yegal man 17 laa tàmbali yéen a demoon balaa un mois 10 jours ma yegal te kuñ ko musaa jox nga am lu un an ma ne ko mbakke yow li nga ma defal danga ko mus a defal kenn taalibe yi nga ma jox du ñu taalibe cheikh yow sa yëfi bopp nga ma jox yii taalibe ëpp dañu seex yëfi boppam la ma jox waaye yéen ñii oh ab cheikh mënu leen a gérer sëriñ bee ma jox yëfi boppam rek barke sëriñ tubaa الحمد للحك المبين من كونه لي يبين على الكتاب المسبين مع جميع اليمين